poulet aux carottes astafurlah poulet aux champignons aux cornichons loolu la ñuy toggal tey poulet au coronavirus. ay déet bay Bachir comme ni ñu ko waxee woon nag tey poulet au cornichon la andi commencé woon nañ nag li nga xam ni mooy préparation au plat bi parce que déjà poulet bi mari woon mariné nañu ko ak paprika ay def tuuti citron ak li nga xam ni nag mooy tuuti herbe de province ak euh, piment vert bàyyi ko nag ak moom ba mu masee réew ci lañ ko jëlee rek daal di koy def ci marmit bi ak euh, tuuti huile jël benn tomate aussi moom it dagg ko en julienne toggaale ko ak moom ba nga xam ne tamit nii day am goût ñu dindi ko daal di jël euh, benn soble bu mag dagg ko tamit moom tamit en petit de ak fond bi la ñu jël togg ko ak moom moo ñu jox nag euh, li nga xam ne mooy euh, soos bi poulet bi nag ñu delloowaat ko ci marmite bi daal di ko ciy tourner ba mu am couleur li may def rek mooy ñëw jël benn cuillère rek ci soos bi daal ko ci rajouter le temps que nag muy gën a amaat bu déjà nag damay ñëw rek dagg tuuti poivron rouge moom it daal di ko ci sànni voilà gis nga nii rek comme li may wax nag à chaque fois ñun fii bu ñuy togg ginaar tànk saafuñu ko ba mu wow rek dañuy foog ni que poulet bi du neex alors que de temps en temps laaj na nag ngay changé façon bi nga koy toggee te dina neex dina am goo bi nga xamante ne nii moom nga ci soxla déjà nii rek poivron bi la ñuy jël moom it dagg ko en petit dé rek voilà moom daal di koy sotti mu fekk ci poulet bi bu ñu paree rek mélanger rek bu baax comme que nag tey poulet ou cornichon la ñuy defar dañuy ñëw rek jël cornichon yi rajouter ko ci nii mën naa ci defaat benn cuillère euh, ci sauce bi suñu paree nag ñu rajouter waat ci tuuti paprika am nañu fi tamit benn mélange d'épices boo xam ni tamit dañu ko ci def à base de poulet la moom it dañuy ñëw rek def ko ci pour gën a relever li nga xam ni nag mooy goût poulet bi. voilà gis nga nii nag dañuy bàyyi tuuti mu ànd ak sauce bi ak poivron yi le temps que nag ñuy ñëw jël li nga xam ne mooy cornichon yi nga xamante tey moom la jël pour defaree ko li nga xam ne mooy poulet bi gis déjà mu fekk si poulet bi poivron bi ak sauce oignon bi nga xam ne préparé naa ko ak fond de marmite bi parce que ñun fii nag comme li ñuy wax sa à chaque fois bu ñuy defar euh, dara dañuy jël fond bi tuur ko te alors que fond bi nag mooy doon li base togg bi parce que li may wax toujours rek liy saf ci soit jën bi wala ginaar bi wala yàpp bi lépp ci fond wu marmite bi lay nekk fond boobu nag da ko war a récupérer garder ko parce que tôt ou tard di ko tey moom la ñu toggee li nga xam ne mooy sauce bi sauce oignon bi nga xam ne moom la ñu am tey gis nga nag euh, bi am couleur ànd ak euh, nga xam ne am corn ànd ak yi ak euh, poivron yi ak tuuti huile bi gis nga ni soo xoolee doo ci seen benn gras trait ngay def soit deux cuillères à soupe wala benn cuillère dina la mën a toggal li nga xam ne mooy sa euh, poulet au cornichon bi nga xamante ne nii moom laa andi tey déjà nii mu pare li ñuy def rek mooy préparer rek suñu benn assiette boo xamante ne nii nañ ci mën a dressé déjà damay wàññi gaz bi rek bàyyi mu ñoroon di tuuti le temps que may dagg quelques tomates en rondelle pour euh, touche bi lay doon parce que togg dafa laaj boo paree assiette bi am na mu war a mel déjà li may def rek mooy ñëw dagg benn tomate gis nga dama choisir nag tomate boo xam ne ñorul loolu tey moom laa choisir pour génne li nga xam ne mooy couleuru assiette bi gis nga nii rek ñu dagg ko en rondelle gis nga nag su ma toggee noonu ba kii damay rek ñëw jëlaat tuuti ci jus cornichon bi nga xam ne mooy ndox bi daal di koy laalaat rek ci poulet bi pour goût bi gën a génn voilà am naa fii tamit piment de Cayenne mais en poudre bi tey moom laa utiliser damay ñëw rek moom tamit daal di ciy defaat tuuti voilà gis na nii rek ñu mélangé lépp gis nga nag poulet bi moom daanaka nii pare na damay ñëwaat rekk dagg fii quelques oignons yoo xamante ni tamit dama koy soxla pour assiette bi voilà moom dama koy def rek en julienne voilà gis na nii rek damay ñëw daal di jël tomate. daal di koy teg nii rek ci assiette bi poulet bi moom pare na voilà damay ñëw rek daal di fay gaz bi jël nag euh, pilon bi mooy gën a neex a teg ci assiette bi daal di jël benn teg nii jëlaat beneen pilon bi teg ko nii. su ma paree nag damay ñëw jël ci li nga xam ne mooy soosu euh, cornichon bi ak euh, jus bi daal di koy teg ci beneen côté bi gis nga ni nag mu am couleur daal di teg ci rebord boobu voilà daal di tegaat nii rek su ma paree rek ma terminer ak quelques oignons moom tamit daal di koy teg nii ci côté bi. waaw gis nga nii rek am nañu fii tamit tuuti mayu moom lay ñëw rekk daal di koy def nii rek ci roboor bi gis nga nag li nag moo nekkoon nag pule o cornichon bi nga xamante ne ni moom laa leen proposé tey mu nekk nag benn plat bu simple boo xamante ne ni lii nag soo ko defee ni mën nga ko accompagner ak soit attiéké wala nga def aloko wala nga def ay pommes frites wala nga sauté say légumes carottes haricots temps yi bari na ci marché bi nga daal di koy def à la vapeur sauté ko ak ay def tuuti beurre accompagner ko nag euh, ak moom mu servir la soit de dîner wala de déjeuner yaay xool Baye Cheikh lu la ci gënal rek def ko bu la neexee nga ko lekk ni pourquoi pas nga ut tuuti detu rek raxas bi râpé tuuti carotte teg na mu accompagner li nga xam ne mooy sa poulet au cornichon bi nga xam ne moom laa leen proposé tey Baye Cheikh. moi j'adore quand c'est sauté à l'ail. <laughs> merci. merci Baye euh, ngeen reprendre recette bi bu leen neexee ah. Euh, mhm. ci YouTube bi wala ci page Facebook bu yeewu leen merci Sophie ak koo mën nag. <laughs> sucré salé bi ngay def le soir de. ah j'adore. ba mu ngi baax rek. o oh, c'est la meilleure émission. pop pop pop pop xam naa ah, prix Nobel de émission télé moom il faut que ñu doog ko sucré salé seetu bi sax. wuyu ko mais ah. sa seetu kii ko rek ah sagal ko rek quand même. <laughs> Bijou am na émission yow yaa ngi def bu ko neexee def bu ko neexee du def. ay production lourde la moo tax. <laughs> toujours te da